sëriñ bi maa ngi yëkkati ak ziar bu ma tibbee ci sama biir xol jëmee ko ci sa jëmm ju tedd jii nuyoo yooyu ak ziar yooyu ànd ak cant ak ngërëm lu doy ngërëm loo xam ni ak cant goo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem loolu nag li ko waral sëriñ bi mooy sa taxawaay bu rafet bi nga am ci biir réew mi ak lépp lu soxal réew mi mu ñëw nag tey ànd ak délégation bi ànd ak sama soxna ak délégation bi ñu ñëw ndokkale si la ci bés bu màgg bi di bésu xadimul rasul di bésu lislaam di bésu yoon wi di bésu Sénégal yëpp ak àdduna bi yëpp ma ñëwaat santati la bu baax na la jërëjëfati ndax sama xol sedd na lool sama xelit yokk na dal bu baax ginnaaw kàddu yu am solo yi nga yëkkati keroog jëmee ko sama jëmm ji keroog ba ngay fàttali taalibe yi ak jullit yi bésu Maam Borom Tuuba bi ñu dëgmal ak waajal kàddu woowu lu rëy la ci man sëriñ bi maa la koy sante bu baax ndax xam naa yaa ma téyel sa bopp ci say loxo bopp ci tedd yi bëggal ma sa bopp ngir yàlla ak suñ tuba kon jërëjëfati ci lépp ba tax na faaw ma taxawaat yokkoon ci taxaw bi ma taxaw sa ngir jàppale la ci liggéey bu mag bii ngay liggéeyal suñ tuba ci dëkk bu tedd bi ak ci yoon wi yépp taxaw sa wet ngir jàppale la ci naal yooyu te bi ñu ci gën a ràññee te xam ne bokk na si li gën a nekk sa xol mooy daara ju mag ji di daara ju kawe ji te université Cheikh Al Khadim ñu fas yéen it euh, nekk sa wet ci boor boobu ndax liggéey boobu sottee dana bëril njëriñ lool lislaam bi bëril njëriñ Sénégal ak Afrique yëpp kon loolu it na jàppal ni gouvernement bi dana nekk sa wet si lépp loo xam ne ginnaaw ba nga sumba liggéey bi def ci lu rëy liñ ci def lépp loo xam ne si sunu wet la danañ ko mottali bu ci yàlla andee man lay santaat sëriñ bi ndax bés yi génn ci waxtaan bi ak ba mbas mi duggee ci réew mi yaa njëkk a jóg wane yoon di alal ju takku dugal ko ci mbirum paj mi wane yoon joxe ndigal kon yaakaar naa ne li ñuy wax takkal sa masque ngir jëfe ndigalu sëriñ bi mhm. lu am njëriñ la ci réew mi te yaakaar naa ne bu ko taalibe yëpp jëfee dinañu am magal bu am solo ndax ren ku ne xam na àdduna bi ni mu doxee waaye am na nañu yaakaar ak yàqin ne lépp dina jàll si jàmm ak salaam kon maa ngi ñaan rek ne ñëpp jëfee ndigal loolee ginnaaw loolu nag xanaa fàttaliwaat rek sumb yi nga xam ne tam yëkkati woon naa ko ci dëkk bu tedd bi bokk na si lii di ay yoon rawatina benn bi jëm jóge Mbàkke jëm Kayel te Tuuba Mbul loolu yàlla def na lépp sotti na dañu xaar rek taw bi jeex nawet bi jeex ñu tàmbali liggéey boobu ci wàllu wér-gu-yaram it xam nga ne hôpital Matlaboul Fawzeyni liggéey bi sotti na juróom benn milliard ak juróom-ñaar def tax na mu nekk tey hôpital bu bees tax waaye nag bi gën a bokk tey ci hôpitaux yi gën a xarañ si biir Sénégal mooy bu mag bi muy defara incha allah fii ak juróom benn weer mois de mars la ñu gàttal ñu inauguré ko boo joxee tur bi ñu si war a def danañ dana jël décret bi ci war ñu créé hôpital bu mag boobu ci Touba nga xam ne bu paree hôpital de niveau 3 la ci Sénégal mooy hôpital yi ëpp mandarga kenn dootu war a mën a jóge Touba di wuti euh, pajukaay feneen Dakar wala feneen fanweeri milliard ak ñaar lañ ci def ci suñuy koppar ci hôpital boobule ci wàllu ndox yaakaar naa ni matuwaay daan jël ci màggal jëlaat nañ ko defaraat yenn ci ay château d'eau mu nu ndamaatu defaraat yenn ci ay forage waaye nag surtout yokk ndax dëkk bi lu muy màggee mooy laaj at mu ne faw ñu yokk lañu defoon ba tax na loolu it gouvernement bi mañ si am nañu yàqin ne euh, liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy tàmbali ci wàllu étude te ñu ñëwoon wan la suñu yéene bu bu étude boobu paree danañ mën a ñoo waxtaan ak ci wàllu ndox mi nan nañ ci amee solution boo xam ne dana nekk solution bu yaatu bu yàgg waaye surtout bu joxe ndox mu sell ci dëkk bu tedd bi la. ci wàllu courant tam yaakaar naa ni làmp yi gis ngeen ko ci dëkk bi waaye ci Sénégal yëpp la loolu it dinañ ko gën a yaatal bu ci yàlla àndee. Euh, dama faral di wax lu bëri ci réalisation waaye dafay laaj leneen rek ñu fàttali ne taxawaay bi fi newoon démb tey la gën a dëgër tey la gën a tar si sa te loolu kanam rek la jëm incha allah kon loolu moo waraloon kàddu yi moo tax damay yeesalaat suñu taalibe si sa yeesalaat it taxawaay bi ak taxawaayu gouvernement bi yëpp dina dina la sant bu baax a baax sant njabootu. Cheikh Ahmadou Bamba eh, xarit sëñ Abdou Fatah maa koy tooñ léegi bu ñuy eh, maanaam sëñ Isaaxa ak nag di Abdul Xaadir mi nga xam ne yaa ngi boole muy yor sa kaddu moom it am liggéey bu rafet bu ñu ciy dox ak mboolam jabootu Cheikh Ahmadou teew fii ñun ñëpp ci suñu tur maa ngi di nuyu di leen ziara di leen andil nuyoo ak ziara réew mi ak ndokkalu Sénégal ci bés bu mag bi ñu dégmal di la sakku ñaan ñaanu réew mi yàlla def fi jàmm yaatal fi jàmm suñu borom it mottali ñu nawet bi nga xam ne am nañ ci yaakaar te ñëpp muurloo ko nga xam ne xéewal yi dana yaatu ci biir Sénégal dañu fàtte lépp lu doon ay jafe-jafe yu fi jotoon jaar kon nag yal na ko yàlla def te boo si ñaan ñu am si bu baax a baax yaakaar loolu na doon kàddu ci lu gàtt rek yi ma bëggoon def di joxaat nuyoo taalibe bi nga xam ne moom soxna Maram mu ngi wax si suñu doom te jot rek sama nuyoo waaw waaw mu ngi lay mu ngi lay bu baax di la ziar maa ngi sant bu baax di gërëm jërëjëf bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin alhamdulilahi alladi hadaana li haza wama kunna linahtadiya lawla an hadaana allah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi Sëriñ Tuubaa tey ci kaw suuf ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem sumbul ak naaj wu rëy yi am ci lislaam am ko ci yoon bi suñu borom may ko kàttan ak wér ba lépp mu ko ni mu ko bëggee ci barkeb Sëriñ Tuubaa yëkkati kàddu yu ak kàddu yu cant ak i ngërëm jëmme ko ci ganam gii di président na bu baax baax dina sant di la gërëm di nuyu itam sa soxna di soxna Mariam Faye di xam ne ñoom tam sëriñ bi xam ne yitteem ak taxawaayam ci moom ak mu jàppoon ci lu yàgg ba tey xam naa dinaa ci dellu si ci kàddu yu ma yóbbante ci bi nga bépp te buñ la tuddee rek ñu mën a yóbbaale njëriñ si ñëpp ndax bëgguma lim di fàtte waaye ñëpp itam di ay jàmbaar ci biir kër gi di jàmbaar ci seen digg ak sëriñ bi kenn desut kenn ku ci ne la nga seq sëriñ bi rafet na bu baax a baax kon nag sëriñ bi xam na ne ñu ngi lay dalal jàmm fii ci Touba ci waajtaay bis bu tedd bi ñu jub si ngir nag sàmmanteeg fi àdduna toll ak fi waxtu toll ñoo tax ku ne xam na ne bi ñu wëndam daa demee ndax mënoo tere dara ba noppoo biir ko di ko woote te xam na ne xam na moo taxoon sëriñ bi yónnee ci kilifa yi nga xam ne ñëpp ay rakkam lañ mu ci des ñëpp di doomam ñi ci te mooy Cheikh Serigne Touba yi xamal leen ne mu demee tax na moom bu fi toogee rek la na fi njabootu Serigne Touba yëpp ñoom ñëpp itam ñu maase ci xam ne fi foo Serigne bi nekk wala ko agsi ci moom ci ñoom ñëpp donte ne kenn ku ci ne yónnee ndaw te Serigne bi itam xamee na ko noonu rafetlu na ko bu baax a baax kon ñi ci nekk mënta tudd rek. mën a yóbbaale yi ci des ñëpp mooy Serigne Issakha Mbacké mi nga xam ne mu ngi fi jotaay bi ak rakkam Serigne Abdou Fatah Mbacké Cheikh Mamadou Fadil mu yóbbaale mboolem mu mën a yóbbaale ñëpp bis bii nag di bisu Serigne Touba xam ne moom moo la yëkkati ngir ànd ko ak Serigne bi mooy bis boo xam ne dafa rëy ci ndax lépp lu am rek ci lañ ko am ndax bis bi. bu Serigne Touba demutoon ci géej gi li mu ko waxee kon ñëpp da tàbbi ci kéefar lislaam far kon nag dafa jot lislaam tax ñu moom suñu bopp kon bis bii lépp lu ñu am ci lañ ko amee moo tax nag Serigne bi fonk ko lool xam ne Serigne Touba moo ko santaane woon te daa ko jëfal bu fam lépp mu delloo ko ci yàlla wax ne na ko ci ñëpp sant la yàlla ba mu nekkee ca liggéeyam bu tedd ba ca nattu ya la ko tàmbalee yéene waxtaan wax ne katabtu yowma sabti inda galwa baada jihaadi wa firaaqi albalwa alhamdulilahi alladi qad raada liyancida wasaaqa li ahraada fustu ladaa galwa wa inda bafali bima ji umiru kulla ma afali mooy ñu màggal gi ma tey waxaat lay de nawaytu shukrahu ladaa daari salaam waa inda Touba bi gis mi waxi wax na ko fu baree bëri kon loolu mooy bis bi nga xam ne ci la suñu borom jeexal na tam yëpp mboolem lu mu amee ci la nag Serigne Touba ci jikko jikko suñu borom defal te mu wéet ca la ko kenn ci euh, benn commandant de cercle bu nekkoon Jurbel te mu bari xam ko mu tuddoon Antoine. Euh, la seen euh, ci 1918 benn rapport bu am solo bu bindoon ci Serigne Touba wax ci wax ju am solo wax ne la de Cheikh Ahmad ba xutwatun euh, fitriya nee na Serigne Touba suñu borom defar na ko euh, xuwa fitriya mais force boo xam ne kenn xawul fu mu jógee nee na itam topp gi ko nit ñi topp itam jéggi na dayoo ba kenn mënu ko misaal ci xel. nee na na leen itam lépp luñ leen digal ñu def ko te duñ ko te te te duñ ci xalaat mu ne Cheikh Ahmad Bamba mu nekk maa ngi seere ci ñun ne eh, ñu ñu jëkkoon di anbiya ak mursalin li ñu màgg màgg ay li ñuy siiw siiw bu ñu dellu si waatoon dañuy ñaan Sëñ Tuubaa ci jikko yi ko yàlla defe na mais nag bokkoon na ci jikko yi rek mooy yéene ñëpp jàmm xamuwul ab soppi ak mu loola waral Sëriñ Tuubaa bis bi nga xam ne ci lañ ko jël natt ko mu jël ne jéggal naa sama noonu yëpp waaw fawtu anil a'daa'i turan li utimma nafaahum li xayri sarmadan lastu abturu suñu borom itam ne ko bu ma tukkee boo ñibbisi xéewal yoo ma fa jële yëpp yàlla nga ko jële sotti ci mboolem sama askan muy Sénégal gépp nga xam ne yemaloo ko ci ñu ko yaakaar waaye képp ku nekk Sénégal rek Sëriñ Tuubaa fàggoo wàllu ci biir ñaan mu wax ne lii aw si li des yi uridu wan faay biyal wara yaa mu wax ne yéen am nisfaay kon loolu mooy bis bi nga ñëw tey kon sëriñ bi nee na mu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci sa digal moom ndax loolu itam li ko waral euh, suñu euh, rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis ba ne al abdu lam yaskur nii maa lam yashkur man ajraytu nicmata ala yadihi jaam bi sant ma li fi santu ko jaaware jaa jaa jaarale xéewal gi ci moom kon nag nee na suñu borom ñi dogal moo leen boole jëkk ngay ne ci jataay bi moo la tam nekkagutoon ci jataay bi mu gis la am ci yaakaar am ci yow ak cofeel gis sa yar ak say teggin ak fonk gi nga ko fonk te bam na xam ne ba liggéey tam gisu tam lu mas a soppiku ci loola ba yàlla def nag mu nekk jataayu Sëriñ Tuubaa bu mu nekkee jotaayu suñu Tuubaa bi itam tam na sa yaakaar dolli ko ci moom nee na kon nag mu ngi lay sant di la gërëm di ko seere taalib yëpp nga ko waxee woon ci bi muy woote màggal gi ma ci lan ngeen lan ngeen itam lu ma ko sant rek li ma denc sama xol moo ko ëpp moo suñu moom jonn dara ci fitne du agsi ci moom loolu nag lépp lu ma ci man ci ñaan ak taxaw ko dinaa ko def kon nag nee na sag cant sa diggal moom ndax li ko waral li tam nag ginnaaw bu cofee gi doxee seen diggante moom euh, njabootu Sëriñ Tuubaa gi tam ak taalibe yi nee nag waxtu mu ne ñu ngi lay yónni la wax wax ay yitte yu jëm ci njaboot bi nee na bu sonoon nag ni ñuy doxalee sa diggante moom mooy dalay may may jàmm du la du la wax du la wax jenn soxla ndax nga mën a def sa liggéey kon lépp lu ñu yëkkati teg na ko rek ci yitte njaboot gi nag nee na loolu nag da koo sant nañ ndax moo fi bàyyi ba sañoon njabootam gën a ci seen ginnaaw ñëpp kenn du ci am dara fitna kenn ku ci ne la nga bëgg tam lu ñu ci mën dana ko def. nee na kon nag cant gi la ci jiitu mooy li ñu lay sant ci njabootam bi lu ci ne nga def ca ba def ca rek mu dut kon loola nee na faaw cant gi mu béyoon ko ba ñoom ñu ngi ko seqal ñu xam ko kon nag nee na ñu ngi lay seere ne lam la waxoon rek Serigne Touba mi nga xam ne moom ngay jëfal na nga xam ne jëflante kenn ku dul moom moom mi nga jëflante nag ne la wóor na. bu la fayee saxul dana sedd te lu weesu itam xam nga ko ci kon yaa na sam xel dal te sa yortu rafet ndax dëkk bi kat yëg ne sumb yu rëy yi nga xam ne def nga ko am na ci ci lim waaye am na ci sax yoo xam ne ko lu mel ne trip 30 bi nga xam ne mat na 11 milliards ak assainissement bi nga xam ne ñu ngi koy def ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ne teewlu ñu ko waaye bu mu toogoon di ko lim dana bari xëy na bu màggal yi jeexee ba ñu leeral dañ ko gën a leeral waaye sëy bi lépp leer na ko sant na ci gërëm na ci kon noonu mi ngi lay ñaan ci yàlla ci barke Sëriñ Tuubaa suñu borom dolli la kàttan dolli la gër gënal leeral sam xel ba yéen ji nga xam ne am nga ko ci réew mi ak ni nga bëgg ànd ak ñoom liggéey Sëriñ bi suñu borom dimbali la ba lépp